jamono biñ toll nii ñu ngi ci li xaw a doy waar ci àddina bi yëpp eh, ci wàllum xew fële ci eh, Ukraine Russia eh, jàngat ko ñu ci defal ak ndénkaane jëmale ko ci Afrique yi lu may ñaan ko bi mm-hmm. Russia fële ña fay xeex ñun suñ doole àggu fa mm-hmm. suñ nit dofuñ dofuñ ba bokk ci ñi nga dañuy dem ci Ukraine wala dem Russie di wax na ñooy dem di di di tatawoo foofu di xeex am na ñu fa dem am na ñoo xam ne dañoo dem foofu ne ñooy dem ji xeexi xeex boobu xeex boobu ñi ko ñi ko sombi mën nañ koo naan waaw waaye loolu ñu sombi nag te ñoom ñu mën koo naan buñ ko naanee àddina dana jafe-jafe boo xam ne ku foog ne sa yoon nekku ci sa yoon a ngi ci àddina fi ne nii benn kër la tey jii Afrique lu gën a bëri ci dundu africain yi ak yeneen àddina bi sax léegi jugee Russie léegi jugee Ukraine bu dul loolu rek loo mbir la moo xam ne nii fu nit nekk rek dana la laal ku foog ne sa nekku ci daal eh, benn waaye dafa wax ne mu ne Muusa Janaa dañ doon xeex ñu ne ñu ne nag wi nag eh, doo àtte nag mu ne yoonam newut ci moom Muusa ak Janaa bu ñu xeex lu ci yoonam ah ñi daa xeexante ba eh, taal safara ci néeg borom kër gi borom kër gi lakk ci dee ñi xëy taxawal dëj ñi rey nag nag waxoon ne yoonam nekku ci waaw moom moo tax yoon yi ñëpp a ngi ci mm-hmm. tey bi àddina bi li muy xaw yoon yi ñëpp a ci ñun nag liñ ci man muñ doole boo xam ne mën nañoo wax eh, Russie ne ko bàyyil mu bàyyi eh, amuñ ay nit ñoo xam ne tim dox nañ ba dem di xeex xeex boo xam ne ñu ko sombi ñoo la ëpp doole mm-hmm. te ba ngay xeex ñoom masuñ laa dimbale dañ la doon xeex mm-hmm. ñu ñaan yàlla daal yàlla jëlee ko fii yàlla na ko yàlla jëlee yàlla na yàlla jeexal guerre yëpp tey jii nag àddina mer nañ ci ba mel ni guerre mars am waaw waaye li xew fële xewoon moo xewoon Iraq mm-hmm. mu mel ni dara xewut moo xewoon Suriya mu mel ni dara xewut xanaa nit ñi buñ xewlee rek la ñuy door a xam ne xewle safaan métti na waaw ngi koy métti di ñaan yàlla mu jeexal ko waaye la fa xewoon rek moo xewoon ci dëkk yee te buñ ko métti lu woon ba la doon xew Iraq buñ ko àddina yëpp métti lu woon niñ métti loo li xew Ukraine nii tey mm-hmm. kon Iraq du àgg fi mu àgg nii bu ñu kon Libye du àgg fi mu àgg fii bu doon euh, Suriya du àgg fi mu àgg fii mm-hmm. waaye xam fi yàlla jëlee xeer yi guerre yëpp yàlla defal ñu jàmm ren jàmm suñu réew jàmm juñ xam ne jàmm la te euh, jàngat la boo xam ne ku nekk rek mën nga cee jàngee àddina ku nekk mën nga cee jàngee euh, ku nekk ngi xool sa réew kon ñun ñi am jàmm nañ garder suñ jàmmi réew yi nañ garder suñ jàmmi bopp yi nañ garder suñ jàmm ñun ci suñ diggante suñ jàmm euh, comme ay mbokk suñ jàmm comme ay dëkkandoor suñ jàmm comme ñu bokk benn réew ndax comme bu fekkee ne jàmm goy fa xaw fële ca gannaaw àddina mu ngi lay affecté yow nga nekk fii kon yàlla bu fi dara xew ñun ci suñu réew yi lu may jàmm yaa rasulillah